présenter samay condoléances à la démocratie sénégalaise parce que damaa jàpp ne instant bi dañoo nekk ci dëy démocratie sénégalaise instant bi daa euh, instant bi parce que la fi am ni loolu lay fëndal parce que daa am ñu bëri ñoo xam ne dañoo taxawoon doon xeex Sénégal pour au moins démocratie bi taxaw ñoo ñooñu mën nañu see lim ñoom Cheikh Anta yàggoon a taxaw di xeex ngir li am taxaw ñu bëri aussi xeex si mais tey nag bu ñëwee ba en mille vingt 2024 ñu gis lu mel lu mel ni am vraiment day nekk si suñu tiis ak naqar parce que amul benn benn cëslaay sur le plan juridique boo xam ne vraiment day permettre président euh, président lu mu def ni mu mu def ko donc rek loolu fa laa bëggoon ubbee euh, vraiment di na naqarlu euh, lu am di wax aussi aussi sénégalais na leen euh, la am ni au moins moom la waroon def sax mooy xaar ba ba loi bi jàll au moins mu dogali mais moom en fait daa anticiper en fait parce que tey ñi tey foog naa ne sëriñ convoqué euh, sëriñ war a def à 11h. à 11h convocation bi génn muy convo euh, convocation bon numéro numéro 04 2000. 24 donc tey si 11h la ñu war a war euh, la war a war a jàllale bi tey en kilifa exécutif war njëkk war ta njëkk euh, euh, député yi si la xew tey bien vrai que boo demee si constitution bi si article article 31 parce que l'initiative en fait de la révision constitutionnelle en appartient soit au président soit l'Assemblée mais excusez-moi euh, même léegi c'est-à-dire euh, euh, article 103 bi day ñëwaat di di wax ni c'est-à-dire que initiative de la de la révision constitutionnelle appartient revient au président à l'exécutif ou bien au député donc tey bu bu bu bu ñu demee ba tey ni exécutif bi di créer bon si. benn affaire imaginaire mu ni daa am crise institutionnelle walla walla di ko njort ba tax moom euh, le corps électoral bu ñu convoqué ba pare mu ñëwaat 18 euh, euh, déléguant man damaa jàpp ne coup d'état waaye man ma c'est-à-dire que position instant ci mbir mi moom mooy dañoo jàpp ne lay xew ni nekkul. nekkul dara lu coup d'état constitutionnel